Uh-huh. ñaareelu point bi moom mooy le cas Pastef. Euh, waaw ban conséquence le Pastef wala ban responsabilité le Pastef am euh, ci li xew. non Pastef amul responsabilité maanaam Pastef moo ko sooke parce que bi ma bindee cours bi ba Sénégal jël cours bi am na ay presse ko dagg naan man dama jóg di. di di indexé Pastef ni Pastef ñoo indi yëf yi xam nga nit ñi aussi il faut ñu mën a lire dama bëgg a wax ni tey mënoo analyser li xew Sénégal te doo ci boole Pastef moom lu mu indi dans le jeu politique parce que bi ñuy àgg ci ci ci ci ci ci élection bi daanaka climat tension ak xëccoo entre nguur gi ak Pastef ci lañ àggee ci élection bi climat boobu ak xëccoo boobu ak xiiroo bay ngaayoo bu diggante nguur gi ak Pastef am na jeexital ci décision bi nga xam ni moom la Macky Sall jël dégg wax bi parce que mënuñoo jóge ci deux ans trois ans yoo xam ni daanaka climat de guerre civile moo am ci réew Macky Sall xëy suba reporter élection yi ñu ni report boobu amul dara amul dara fu mu taqeeg laa lekk li xew diggante Pastef ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ak yooyu donc moo tax ma tudde ko le facteur Pastef dans la co moom la Pastef yokk xar mi karaw ci la xew ci réew mi voilà bu ñu nekkoon dañoo nga ne dañoo nekkoon ci climat de tension mais climat de tension bi la muy am yëpp terewul woon euh, il un membre de PASTEF qui fait partie des candidats retenus et le pays était calme nit ñi pare woon nañu pour dem ci élection. Mm-hmm. waaw mais membre PASTEF boobu bokk ci candidat retenu damaa jàpp ci ci xal yi taal daay ji ci la bokk. c'est-à-dire. bu membre PASTEF bokkuloon ci liste bi problème bi ce serait moins grave. mais en quoi est-ce que bokkam indi problème ci liste bi dafa warul bokk. dañ ko bokkal fekk xam nga war na war naa war naa bokk ak warula bokk loolu débat la yaa ngi dégg man sama interprétation juriste mooy warula bokk. ah mais loolu droit waaw. lu tax warula ah. bokk. mais parce que boo bokkee ci organisation buñ dissoudre mënoo mënoo de sax demander mandat conseil municipal. waxuma présidence de la république mais loolu weesu dañ ko parce que du man maay décider kan mooy bokk ak kan moo dul bokk parce que conseil constitutionnel mooy décider kan mooy bokk dès lors que conseil constitutionnel décider na kii day bokk rek kon kii day bokk waaye jàpp naa ne la fet que mu bokk am na lu mu yokk ci décision bi nga xam ni moo tax ñu annuler élection bi jàpp naa loolu voilà donc moom bokk bi mais mais beneen. jàpp naa waaw mais beneen. Mhm. bokkam est-ce que dafa générer tension. bu war a mën a justifier un. non waxu waxuma waxuma tension xam nga politique lañ nekk euh, euh, euh, Maïmouna te te pas naïf dama ni Bassirou Diomaye Faye bu bokkuloon ci liste bi ah xëy na tey élection yi tey kenn du ko annulé.